d'abord voudrais nuyu di leen félicité di nuyu africanité di partenaire Moussa Moustapha Cissé ndax euh, maanaam liñ naan feccum liir bu neexee yaay jaay la Cissé allah seetaanu Lutte TV benn yoon ba fu Lutte TV yegg rek euh, nga ca ak euh, bonne volonté yi département nuyu di di nuyu waa Ndindy TV yëpp di kontaan nag ci journée démb bi macha allah journée démb bi doon na retrouvaille boo xam ne man ba ma egsee dama commencé di di laaj nit ñi seen tur parce que yàgg nañ Ndindy TV te xamante wuñu te journée démb bi may nañu opportunité yu bëri nga jëm leen a découvrir jëm leen na xam loolu tam lu am solo la kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla doom une continuité chaque année rek yalla doore ñu ñu bañu am voilà ñu organiser woon ko cadre bi surtout thème bi nga xamante ni ñu doon waxtaanee fexe ba Kër ñëpp booloo nekk benn euh, ban gis-gis nga am ci loolu nga réussir nañ ko ndax daanaka gis nañ euh, pratiquement ñu pouvoir opposition c'est rare mu am ñu ngir développement.

kontaan ci ànd bi ñu ànd tam mu doon ànd bu rafet boo xam ne nii dara yàqu ko macha allah bi ñu gisantee daal den doon na loo xam ne daal lu am solo la ci département bi ndax loolu jafe la kon ku réussir dañ la war a félicité kon ñu félicité waa Nit TV bu baax a baax ndax journée démb bi c'était une réussite totale macha allah ndax ñëpp daje nañ fa kontaan nañu bëggee nañu euh, lekk yi doy na euh, kaf gi bëri na macha allah euh, nit ñu baax ñëpp daje nañ fi daal olomaa yeeg. chef de quartier yëpp kon koo ko réussir la dañ lay félicité loolu ñu ngi félicité waa Nitte TV bu baax a baax. voilà merci.